bismillahi irrahmani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di ñëw ak yéen ci xaajub juróom ñett fukk juróom ci jataay bi nga xam ne dañu ciy jéem a laaral ci wolof sunu kem kattan téereb minanul baaqil qadim fi siirati cheikh al qadim sëriñ Bachiru radiallahu taala ko ci dundu sëriñ bi xaaj bii nu génn mi ngi yamoon ci fi Seydina Ali di nettalee keroog guddi badar yonante bi ñun ñëpp ñu ngi ñu ngi nelaw ne la bañ a suba la badar maanaa ci guddi amul ci noonu kudul mu mi ngi nelaw kudul yonante bi sallallahu alayhi moom rek ma nga taxaw ca garab ga di julli di ñaan boroomam ba julli suba jot noonu la fanaane nee na ba ñu xëyee di bisu badar nit ñëpp teew ñu jàmmaarloog yéefar yi nun ñëpp ci moom lañu ñu doon xegoo moom yonent bi moo doon sunu laqwaay ba Bachiru ne wa kama qaala taala xikaayatan an nabiyihi muusa rabbana tamis ala amwalihim washtuddu ala qulubihim wa qaala an nuux rabbi laa tadar ala al ardi min alkaafirina dayyaara qaala an muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa an asxaabi fansurnaa ala alqawmi alkaafirin sëñ Bachir ne ni ko ni ko sunu boroom nettalee tabaraka wa taala ci waxe yonantam ba di Muusa alayhi salaam ba muy ñaanal yéefar ya naan sunu boroom yal na nga far seeni alal te kast seeni xol sakk seeni xol mu ne noox itam noonu la nettalee mooy la nooxin ñaanoon ñaanaloon yéefar ya ne ko rabbi yàlla boo bàyyi ci kaw suuf yow sunu borom yàlla boo bàyyi ci kaw suuf kenn ci ñoom yéefar yi alag leen ñoom ñëpp maanaam naka noonu itam ci làmmiñu yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam moog saxaabaam ñuy ñaan sunu borom naan ko fansurna yàlla na nga nu dimbale ci yéefar yi mu ne ay yoon mu ne sàkku ndimbal gi nag ak jaamu la akuk njaame ak xemmem téef nag xemmem téef la ci yëkkati kàddu yàlla ak rootal kàddu kéefër kàddu yéefar yi maanaam kon ñaan yi ñuy ñaan donte am na nañu yaqiin ci seen boroom ñoom la àndalit dañuy ñaan ngeru njaame jaamoo ko yàlla ak nangu seenu njaame ak it xemmem nag yëkkati kàddu yàlla te mooy diinay tawxid yi ñuy woote ak kàddu géefar yi di kiifar maanaa ñu màbb ko rotal ko sëñ Bachiru ne nekk noonu rek la demee sàkku ga sunu sunu sëriñ radiyallahu anhu di ci boromam ndimbal mu may ko ndam noonu ma koy sàkko ci boroomam noonu rek mooy ni koy yonent yi rek doon defee di ko jaamu boroomam génnut mbir mi nii rek la demee woon. mooy naka noonu sëriñ bi ay càkk sëriñ bi ay càkku téefam ak xemmem téefam lépp dara génnu ci ngir tettal diine yëkkati diine rek ak taral ko. ak dëgëral kenooy diine. ak dimbali diineeg dimbali ñuñ diine waaye dara amul lenn loo xam ne bànneexu keesa rek moo ko waral mboolem ñaan yeeg yi muy ñaan yépp lool dong nga ko ci yóbbu ngir rek lu gën a yëkkati diine gën a dëgëral ay kenoom ak lu gën a dimbali ñi dund diine loolu rek mooy yitte sëñ Tuubaa moo waral ñaan yi ñaan boroomam mu ne moom sëriñ bi ci maqamam muñ lu ñuy jàngale ci xasaayidam fam toll ci muñ boo dellu ci xasaayidi rek mu leer la nañ ñi ci xasaayidi rawatina xasaay yi nga xam ne da koo defee ci géej ga ak ya nga xam ne da ciy déeyaaleeg boroomam ay munaajaat rabbaaniya lañu déeyaaleeg boroomam la mu ne danaa la ci jox rek misaal ci xasaayit yu néew yoo xam ne dana la ci bëri dëgg dëggam moom sëriñ bi nee kiy wax kiy dégg rek mën naa xam mooy kan mooy li wolof di wax ku wax feeñ nit ki bu dégloo nit mu wax rek dana ca mën a xame maanaam ya taxaw ci boppam maanaam kiy wax dëgg-dëgg mooy kan ak fi mu toll fan la nee na lam jëkk wax moom sëñ Tuubaa ci xeeti woy mooy xasida goo xam ne mooy jamono yi muy dugg ci loxol tubaab yi xasida goo xam ne da ko sadd ci araf araf yi xasbunallahu wa ni'mal wakiil noonu la ko sëñ Tuubaa tënke nee bis ba muy génnee këram googu di Mbàkke Baari la ko bind ngoon nga nga xam ne rek bu xëyee war a dem wuy ji ngoonu àjjuma googu la bind xasida gi sëñ Bachiru ne sëñ sëñ Bachiru ne sëñ nee na ma loo xam ne kàddoom sama nopp mu shafahatan la wax moom moo ko wax sëñ Tuubaa ci boppam moo ma nettali lii moo ko nettalil boppam jàng xasida gi ma dégg wax ma ne ma da def ku bay la xuruuji lu jiitu tuuti rek muy génn ma la ko waxee ba mu ne suba lay dem rek la ko bind xasida gi sëñ Bachir andi ko nee na fii la tàmbalee maanaam fii la tàmbalee xamidtu man yaasimuni min addarar min kulli shaytaanin wa jinnin wa bashar nee na ka nga xam ne dana ma musal ci lor dana ma musal ci lor ju jóge ju jóge ci jëppu saytaane ak jinne ak nit mu ngi bëgg a dugg ci seen loxo di wax di yàlla dana ma musal kon moom bu dee ñaanati lam la waxoon rek ñaanuk jaamu rek ak njaame lay doon ak bëgg a yëkkati lislaam waaye am na yaqin ci boroomam ndax xamittu la wax sant naa yàlla mi nga xam dana ma musal mu ne subhaanahu rabban xafidan ahtami bi xifdihi min albala wa niqami tudd naa sellug yàlla soril naa ko lépp lu yellul ci jëmmam ji muy buur bu mën a aare buur boo xam ne dana sakkoo aaro ci kaaraangeem ba mën a mucc ci mboolem balaa yi ak tiis yi yépp ak xeeti mbugal yi به أعوذ من هواي واللعين ومن جميع المؤذيات كل حين maa ngi muslu ci yàlla musal ma ci sama lori bànneex musal ma ci cheytaan yi musal ma ci mboolem xeete yi lore jamono ju ne nawaytu an aduwahu mustashfian bi jaahi xibbihi shafiu shufaa ñaan ko moom yàlla di sàkku tinu ci daraja yi soppeem ba nga xam ne mooy tiinu waytin yi ñi ramu ñëpp moo leen di ramu mooy yonente bi sallallahu alayhi wa kooku mooy ahmada kon sayidal wara musalliya alayhi da tawassulin li rabbiya ahmadu sanku mbindi fi may sàkkoo julli ci moom di jottali ko ci sama boroom asalu rabbiya bi jaahihi najaat min arrazaya wa tanaazuci albugaat maa ngi ñaan yàlla sama boroom ci darajaam moom yonent boobi moom yonent boobi maa ngi ñaan ci darajaam yàlla ak mucc mucc ci mboolem jikko melo yu suufe yi ak jikko yu suufe yi mucc it ci xëccoob way bew yi lakal wara yaa rabbi hablil usma minhum wa min kulli bala wa niqma yàlla yaa moom bindi fi yow bi maa ngi la ñaan ak mucc ci ñoom mu ngi noonu yooyu ak mucc mbindeef yépp seeni lor ak mucc ci mbooleem balaa yeeg tiis yi laka jaxaltu yaa xafidan nafsi yaa xafidu nafsi wadiyatan fa anta dëban unsi dénk naa la sama bopp yow yàlla yow mi aji aare ji dénk naa la sama bopp maanaam yow mi aji wattu ji ki aar ki a aare lool te ba faw yaay doon sama wéttal <clears throat> هب ما أحب في الدارين وفيه مع السن من العارين yow sama borom yàlla nag ma may lépp lu ma bëgg àdduna ak alaxira te yàlla nag ma musal ci àdduna ak ci ñaari gàcce yi gàcce ak àdduna ak gàcce ak alaxira yàlla ma ci musal wajjahtu wajhiya ilayka rabbi maa wasilati wa dalaka xasbi jubale naa sama jëmm ci yow maanaam jublu naa la yow yàlla ak sama lépp yow sama boroom ànd ak sama wasila di yenente bi sallallahu lool nag doy na ma sëkk nag loolu doy na ma sëkk najji janaabi min jamii ma yasuuf wa anni yakfi kulla ma yuwaswisu yàlla na nga musal sama wàll ci mboolem loo xam ne dana ma dana dana dana dana ma naqari lépp lu ma taamuwut daal yàlla nag ma ci musal te fegal ma lépp loo xam ne dana jax-jaxal muy jax-jaxali xol أن نصرف الأعداء طرا بالنبي وأهل بدر الكرام النجب yàlla na nga ma wëlbatil wëlbatil noon yi fegal ma leen ñoom ñëpp ci darajey yonent bi ak darajey ahlu badar waaye tedd ya di tànneef mun na alaya bidduxuli saakina fi xisnika alxasini minhum amina yàlla na nga ma may ma dugg ci sa sange ma dugg dugg dal muy sa kaaraange nga xam ne kenn mënu ko bët yàlla nag ma ci dugal te musal ma nag ma wóolu lool noon yi ma wóolu seeni lor anta alladi taasi muman bika atasam min kulli ma ya ummuhu min an niqam yow yàlla yow yaay ki nga xam ne da musal képp koo xam ne ngoy na ci yow képp ku làqu ci yow ngoy ci yow da nga ko musal ci lépp loo xam ne dana ko jublu ci ay xeeti tiisa ki balaa ki mbugal lépp daal loo xam ne musiba la lu jëm si ci nit mu làqutoo ci yow rek nga musal ko ci ci yow moomu la la la la làqu nag moo tax mu ne laka umuri laka umuri abadan ufawwidu وكل من بك التجاه لا يرفض yow yàlla jébbal naa la samay mbir mi ngi ci sa loxo sama mbir yépp jooyal naa ko jëm ci yow ba faw nag jooyal naa sama mbir yépp jëm ci yow ba faw bàyyi la sama bopp te yow nag képp ku wéeru ci yow kenn du ko bëmax ku wéeru ci yow rek wéeru na fu dëgëre dëgër kenn mënu koo daaneel maanaam kon sama mbir yépp jëlal naa ko jëm ci yow wéeru ci yow yow mi nga xam ne ko wéeru ci yow kenn mënalu ko dara muy sunu borom subhanahu wa tabaraka wa taala kon xaaj bi ñu tënk ko fii jox leen daje ci bi ciy topp incha allah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh